Euh, li nga xamante ni tey nag moom la ñu indi seen émission médecine africaine ñu indi problème mu infertilité chez les hommes maanaam góor gi nga xamante ni mi ngi ànd ak soxnaam di sëy ci benn at ñaari at ñetti at ba ñeent ba juróom wala lu ko ëpp te mënul am doom li ñuy wax nag mooy góor gu nekk boo àndeek sa soxna di sëy benn at te amoo doom na nga jéem a seet aji fajkat bi muy docteur bi wala muy sëriñ ñu faj la wala ñu ñaanal la parce que ñoom ñaar rek ñooy faj. yàlla bind na ci àddina feebar bu la mën dal ci àddina bu la docteur fajul sëriñ moo lay faj bu la ñoom ñaar fajul rek musiba na kon nag yàlla nañu yàlla defal jàmm ba képp ku am feebar rek yàlla na suñu borom orienté ca ka gën ci yow muy docteur bi gën ci yow wala muy sëriñ bi gën ci yow nga faju li ñu mën a wax daal tey problème mu infertilité boobu chez some hommes euh, bëri na li ñu koy faral di gis ci góor ñi xamante ni dañuy ànd ak seen soxna mais amuñu doom li ma wax sànq képp ku séeg sa soxna benn at te amook doom sa soxna xoolal fajkat ñu faj la ndax foofu li ñu mën a wax mooy li ñu la war a njëkk defal mooy dañ la war a xoolal lan moo tax mënoo am doom bu dee ci ñun nag bu ñu ko seetee ci alxuraan dinañ ko xam waaye itim am na ci nga xam te ne dañu faral di ñëw indi seen bilan spermogramme kooku dafay fekk mu jëkkee ci docteur bi te yàlla def amul fa résultat wala mu bëgg cumuler de deux traitements bu indee bilan spermogramme boobu ma wax wala jaan yi war a nekk ci sperme bi dafay manqué mobilité dafay manqué vitalité te dafay gaaw a dee loolu mooy azoospermie oligospermie nésospermie muy walax jaan bi xam ne dafay gaaw a dee ak ki nga ni amu ko ak ki nga ni dafa manqué te loolu nag li koy gën a sabab mooy ñi xam ni dañu am problème mu ko varicocèle nag bu ñu ko déggee c'est la dilatation des veines autour du testicule te booba dafay dem ba ay intervention chirurgicale te loolu yëpp bala ñu fay mën a egg jàpp nañu ni bu ñu bàyyi woon xel ci suñuy valeur traditionnelle muy ñun africain am na lu ñu yàlla may nit ku ñuul am na lu ko yàlla defal ndax médecine bi ñuy def muy médecine africain nañu bàyyi xel ni tey jii japonais yi dañu am seen médecine japonaise boo demee tey jii Thaïlande dañu am médecine thaïlandaise boo demee ci chinois yi dañu am médecine chinoise boo demee ci tubaab yi dañu am médecine européenne ak médecine américaine kon nag ñun it africaine nañu gëm suñu bopp Afrique am na lu fi yàlla def am na suñuy vertu am na suñuy valeur traditionnelle yi fi am feebar boobu bu la dalee ci kàttanu suñu borom ngay ànd ak sa soxna te sa man yu dafa woyof dafa niin wala boog mënoo ànd ak moom ci normal

foofu lañ leen mën a focaliser bu ñu gisee seen problème ci kàttan yàlla dinañ leen ci mën a jox ba may ay garab ba ndox mi dana ñëw da nekk de très bonne qualité dootul niin spermatozoïdes yi dana gën a bari en mobilité en vitalité te boo ànd ak sa soxna nga sëy mu mën a am fécondité mën a am nidation mën a am doom for fa mën a taxaw ci ay normes yi xam te moo sosu ndax doom moom bu yëfu nit yëfu yàlla la am na ñu xam te ne yàlla tudd leen ñu war a am doom te loolu yëpp buñ ko seetee ñun dinañu mën a xam lan moo ci nekk incha allahu rabbi daanaka daal mën nañu wax ni traitement bi gaaw na ci diiru un mois ba 45 jours mooy maximum bi ci kàttanu suñu borom ku ko jëfandikoo ci kàttanu yàlla am na lu ñu la koy fajalee ci biir am na lu ñuy defar itam ci biti mën la ko jox nga xam te dafa jël ci wàllu baatin ndax alxuraan lépp ngi ci biir am na ay surat am na ay aaya am na ay mbir yi nga xam te daal dañuy jël mbóot bi ci alxuraan boole ko xam-xam ñu yàlla may ci plante yi ndax ñu nit ay phytothérapeute lañu xam nañu bu baax principe actif yi nekk ci biir garab yi ak molécules yi ndax ñu loolu lañ jàng la plante dans toute sa globalité ci sève yi ci reine yi ci écorce bi ci tige bi ci branche yi ci feuille bi benn bu ci nekk ci garab yi maîtriser nañ ko bu baax a baax a baax a baax ba xamante ni mën nañu xool ban garab lañ la mën a jox naturellement nga mën ko jël utiliser ko mu nekk ay complémentaire d'aliments yi xam te ni boo ko jëlee dana mën dimbale ci sa ndoxu seyukaay ba mu nekk de très bonne qualité nga ànd ak sa soxna ngeen ànd ngeen sëy ci kattan yàlla kon nag bu ñu waxee ko góor rek danañ wax ci jigéen yenn problème yi dana nekk ci góor yenn problème yi dana nekk ci jigéen mais yenn problème yi itam dafay nekk ay causes yi xam te ni cause mystique lay doon wala ay problème yi xam te ni dafay dem ci wàllu rab te loolu incha allahu rabbi danañ ci gën a indi ay leeral ay deret yu niroo lay doon wala problème de non compatibilité daf ciy génn wala li xam te ni itam yàlla dafa nammul ci ñoomu doom tey cas yooyu itam raar na lool lool lool lool kon nag li ñu mën wax couple yi bu ñu gëstoo xool ku góor ki rek wala ñu xool ku jigéen ki wala ñoom ñaar ñëpp ñu ànd ñëw danañu xam fan la problème bi nekk wala bu fekkee ci ñoom ñaar ñëpp danañ leen ci jàppale fajal leen ko may leen ay garab ba loolu mu mën a dañ kon nag ñoo ngi santaat sénégalais yëpp di leen gërëmaat bu baax a baax di leen wax ni rek fii rek lañ koy faral di defee saa su ne fii ci cabinet médical bu Serigne Mouhamadou Lamine Bara Fall di def médecine africaine comme ni ma ko waxee léegi euh, incha allahu rabbi ku ñu yàlla booleel rek dinañ la ci jàppale te yàlla rek tax may la ci ay traitement yi xam te ni boo ko suivre ci ñaari rendez-vous ba ñett yàlla mën na la dimbali sa traitement dina dañ di leen fàttali itam am nañu oto bi nga xamante ni moo nekk nii di def auto livraison à domicile bi képp ki nga xamante ni foo mënti nekk ci Sénégal wala foo mënti nekk ci àddina wooteel dinañu mën a xam nan la mën a def ba say garab nga mën cee jot te du jar sax parfois ngay déplacé waaye bi gën nag mooy nga ñëw def sa consultation nga toog ak ñun waxtaan ak ñun kon nag képp ku woote rek incha allah rabbi danañ la mën a jox suñu programme wax la nan nañu mën def ba nga jot ci garab yi ci baaxu yàlla ci màggu yonent bi ak ci aminu Serigne Touba kon nag ñoo ngi santaan ñëpp di ñaanal ñëpp ñoo ngi leen di sant baax di leen gërëm di leen sant tey ji nag yéen seen cabinet univers bio bu Serigne ci Dakar Guédiawaye arrêt du Balès képp ki nga xamante di sëy te yàlla dogal mënuñoo am doom fii ku fi ñëw jàppale ci ay traitement urologique maanaam lépp lu jëm ci sa wàllu ndoxu sëyukaay ak wàllu doole beeg ngóor beeg kattanu sëy bi dañ la ci mën a jàppale ba mu baax surtout nag ay traitement yi nga xamante ne moo tudd yokk Pastef traitement la bi nga xamante ni macha allah képp ki nga xamante ni yaa ngi ànd ak sa sox am problème mu am doom mu jëm ci azospermie mu jëm ci oligospermie mu jëm ci nésospermie maanaam qualité ndoxu sëyukaay bi am problème lii sax ci traitement bi la bokk da leen di jàppale pour doole beeg ngóor a beeg kàttanu see beeg lépp ci biir dañ leen di mayaale ay ñaan ñenn ñi problème mu rab ak seytaane moo leen di faral di jàpp ba ñuy mën a am jafe-jafe ànd ak seen i soxna képp ku ñu soxla mun nañu woo ci numéro yii ñu bind ci suuf incha allah am nañu cabinet fii ci Dakar Guédiawaye arrêt Doubalès am nañ ko ci Touba Jannatu Mahwa wala ñu woowee rek daañu leen ci mën a jàppale bu baax baax incha allah